asalaamaaleykum mbokk internet yu seen football TV nuy naa leen bu baax tey nag dañoo déplacé wu andil leen seen pépite yi nga xamante ni yàgg ngeen ko réclamer ci chaîne bi mooy suñu brésilien man moom sénégalais la ba man brésilien laa koy woowee tellement que dafa yor seen style ba sànq rek ay soo brésilien la ñu accueillir Aliou nuyu naa la. Azena ah, fay naa la. nuyu waa seen football TV nga xamante ni dañ laa sopp lool. waaw ah, gars yi maa ngi di nuyu Euh, man la Alioune Badara Mané comme ñoom Mohamed niñ ma ko yàgg a waxee ak Zeyna. Mhm. gars yi nañ ma gis. Mhm. Ah, te yàlla dogal na maa ngi ni ak Zeyna ak Mohamed. Mhm. Ah, leen wax aussi kontaan naa si ñëpp. gis naa nuñ may damay gis ñu may yónnee message di ma encouragé donc di wax ni kontaan naa trop. tey pour ñi la bëgg xam internet yu seen football TV sénégalais sax laay wax ñi nga xamante ne dañoo intéressé wu ci yow carrément tey boo leen doon wax Alioune Badara lan nga leen di wax kan mooy Alioune Badara Mané. bon man euh, maa ngi dëkk Ziguinchor bon fala depuis muy nekk xale fala nekkoon fala footballé école de foot. Mhm. jaar jaar naa académie mu joué naa fa nawetaan après ba fala fala sama kii bi jaar. Euh, Fala Diarbaam agent. Mhm. si académie foofu la ma gisee. alors Alioune Badara Mané qu'est-ce qui t'a poussé à devenir footballeur. ah bon man depuis bu may ndaw fi ma dëkkoon Ziguinchor ñun suñu koñ bi. Mhm. football rek lañ doon foyer quoi. Mhm. football lañ doon fooyee te man sama gale sama pap soo xoolee sama pap day football rakam yi magam yi non rakami yi kese laa wax. ñoom ñëpp dañuy football.

daweekul sax <laughs> di football ji xam nga. Mhm. donc père bi après dafa demoon sax ba mu gis ni loolu xam commencé na ma sonal. Mhm. après mu yóbbu ma si benn village bu tudd Abene pour ma mën a jàng. foofu fan la Casamance. Casamance foofu noonu benn village bu tudd Abene. Mhm. après fa laa dem di jàng en même temps di football tamit di jàng di football. bon noonu laa kii ba ma dellu Ziguinchor après bu ma amee BFM si laa dellu Ziguinchor. continuer football bi di jàngale tamit. donc. Mhm. noonu laa continué waaw. voilà ñu waxul dégg nañ père bi c'est un très bon footballeur. ah père moom dalaa gagné si match. waaw yow père bi la pokete loolu waroo ko woon nangu. <laughs> ah bi yow père bi ah, aayewul a aaye. am <laughs> na ñoom seen kii yooyu noonu rek mooy loolu. Mhm. alors yow sans plus tarder nan nga meloon bi nga nekkee xale. ni ma meloon. terrible wala calme. waaw ah, dëgëroon naa bopp nag. ça se voit. waaw. Ah, mhm. dëgëroon naa bopp. Mhm. Ah, loolu lañ may wax mais man gëmoo ni naa bopp même mhm. <laughs> ah, dëgëroon naa bopp de même dama doon dama doon dem jàngi sax. ma dem fubali ji. dellu si kër ga damay tilim sama yaay na ma dóor <laughs> le lendemain encore. mu delluwaat dem fubal dama doon dayoo ko li dem fubal léegi su ma dellu see nag sama yére yëpp dee tilim nag meer bi dóor ma. mais taxut le lendemain demé delouat encore delouat bon anga rek football bi moy lol moom moo nak mm-hmm. nag ba yak sama jang hmm tay reccu ko football bi ni mu yaké sa jang ba am reccu ko mm-hmm. bon man suma sañon mom, suma sañon sori si jang bi fan nga yam ban classe man mai yam seconde line. yem waaw sori won nga de waaw mais man suma sañon am sama bac Mm-hmm. après door ki mais bu may def seconde. Mm-hmm. xam nga rek après si laa amoon yoon pour voyager. Mm-hmm. donc après bëgguma woon man loolu rek loolu dafa yàgg doon sama rêve. donc bi ma demee ba am opportunité boobu moo tax ma ma bàyyi jàng bi fii ma voyager en de seconde. bu may nekk fii balaa voyage boobu noonu sax ñëwoon naa sama ñëwoon naa ba fii Tëngéej bay jàng bi fii. après affaire yi mooy loolu rek ma delluwaat waaw ma delluwaat kii sur continuer jang après si am opportunité bii donc bëggu moon mu rëcc man da xawma après nakala la ah ah ndax bi dama don jang non juste pour jàng rek <laughs> mais football bi moom dafa yàgg doon sama mm-hmm. rêve donc bima am opportunité bobu noonu ma bàyyi jang bi fi mm-hmm. continuer lool nak mo yak sama jang légui yow sa carrière footballistique nan la démé au Sénégal ba nga mën ci voyager tay ok man bu may xalé depuis bu may xalé cela a commencé maa ngi Dynamo académie de Ziguinchor mm-hmm. fa laa commencé on commencé di football en même mhm. temps di janga après donc comme djanga bi doxaloon foofu boba bu baax mhm. père bi décidé yóbbu ma donc je nekk foofu noonu abenne à école de football kunda mhm. donc fa laa nekkoon di entraîner du football en même temps di janga après si j'ai un si mais ça ma donc sama y donc ma joué je navétane joué naa navétane après nawetaan bu jeexee nii damay nekk si académie bi. Mhm. mooy bu Dynamo académie de Ziguinchor. c'est vrai donc fa laa nekkoon ba après agent yi foofu la ñoo def test ñu gis ma bon après si kii ñoom ñoom moo mujj yóbbu Brésil. yow agent yi dañ la fekk Ziguinchor. Hmm. ñu gis la nga convaincre leen ci football. Mhm. ñu yóbbu la Brésil. waaw noonu la fa demee. kon yow Brésil bi choisiroo ko quoi. waaw ñu dañ la fa yóbbu. waaw. parce que ñoom dañ ma ne woon euh, c'était pour Espagne. Mhm. mais après bu ñu toogee ñu waxtaan ñu expliqué ma lépp nu mu fa demee après si la ñu choisir dem Brésil. Mhm. def fa quelques années pour après ma ñëw côté Europe bi noonu loolu moo ne woon. objectif bi mhm. daal. donc. biñ la waxee Brésil tiitoo. non tiituma yow nga jóge Sénégal war a dem Brésil nga xamante ne foofu la football fekk baax nga xamante ne foofu talent yëpp foofu lay génnee yow tiitoo waxoon ne man su ma demee Brésil est-ce que man dinaa fa mën a percer ak ñi ma fay fekk loolu yëpp defoo ko woon sa bopp. non tiituma. Hmm. man damaa kontaan sax parce que man euh, dutewu ma si sama talent. Hmm. xam naa lii ma yàlla may te liggéey naa tamit pour mën a exploiter loolu. Hmm. buñ bu ñu ma nee Brésil laay dem dama kontaan noonu su ma nee guddi boobu yëpp. <laughs> nelaw ma ko sax <laughs> bon loolu la ko moo tax. déjà yow sa style de jeu dafa brésilien trop trop man bañ na ko man dama la woowee Sénégal yow brésilien laa lay woowee léegi yow loolu da nga koy yóbbaale ou bien da nga adapté bi nga demee foofu au fur et à mesure sa dribble yi man dama lay gis damay gis benn Vinicius Junior buy jaar ci côté alors loolu da nga yóbbaale wala. loolu fuba boobu dafa yàgg nekk ci man. Mhm. loolu depuis may nekk fii la. Mhm. ñi ma jot a xam euh, bu musée nawetaan ñi ma jot a xam yëpp xam ne man noonu laa yàgg mel. ngay dugg di sonal gaay euh, waaw loolu loolu moom dafa yàgg nekk ci man. c'est trop Vinicius Junior. <laughs> non ma doon jouer nawetaan. fii mhm. man loolu moo doon ne. jàpp ballon di fo di dribbler xam nga ñi di yuuxu donc man. yoy momi mi quoi. donc buma ma demee fee tamit fekk naa ko fofu non xam nga. Mhm. donc sama adaptation fofu non sax lolu moo tax mu. mu gën a waaw. Mhm. yomb quoi. sa adaptation ñu wax ci adaptation comment s'est passé sa intégration au niveau au niveau du Brésil alors que yow déggoo won sen langue est-ce que metti won na ci yow. bon bu may dooree egg foofu noonu métti woon na moom. Mhm. bu may dooree egg fofu non parce que déggu ma langue bi. xam nga sen lekkay tamit moy lolu waaye bëggoo ko woon. non bëgguma ko woon lekk Brésil. ah seen plat. foofu moom bëri na kii am na. Mhm. man daal kii laa si gën a bëgg waa churrasco. loolu bat balaa la loolu lan la si viande. Euh, waaw viande la. Mhm. c'est comme dañ koy lakk dañ koy lakk. viande voilà. Mhm. man moom laa si gën a kii quoi. bon bu may door a egg foofu noonu météo na sama côté parce que amoon na benn maire foofu noonu moo ñu doon jàppale si adaptation yi. même suñu demee entraînement coach bi si wasa moom day toog suñu wét. Mm-hmm. lu coach bi wax mu traduire ñu ko pour ñu mëna xam lu ñu wax mm-hmm. donc xam nga lolu metti wona do xam nekk ak nit do xam lu ñu wax bon non la ko jaayante jaayante ba après petit à petit ma commencé lak ak ñoom yow ni nga déggé sen langue bi dafa gaaw ci man parce que je te vois tu es à l'aise boy communiquer portugais tu parles très bien ah, parce que dama sof rek amoon professeur wala amuñu ñu professeur sax commencé sobre dëgër boppam moo ma moo ma kii moo ma jàppale si loolu parce man dama doon nekk ak boo yi. Mhm. damay lakk di jaxase ak ñoom. Mhm. xam nga donc loolu moo ma gën a jàppale. Mhm. à que ma ma gën a évoluer bu may nekk foofu noonu sax am na ñoo xamante ne su ma waxee ak ñoom sax bu mu fay am 7 mois. suñ ma laajte ba xam dama fa yàgg su ma leen nee 7 mois qu'est-ce que laa fa am dañ may laajte ba xam dama nekk di jàngat. xam nga c'est bizarre mën nga. yow mag nga dem nga fofu mën nga fa yàgg balaa ngay dégg seen langue mais yow da nga ñëw daa mel ne bi seen langue bi nga gën a dégg sax ko olof bi. ah <laughs> ah loolu dëgër bopp rek. Mhm. ak ak xel bu neex. léegi nga def parcours bu ngande une très belle saison fële ci Brésil. Mhm. nga décidé changer club dem Espagne changer pays sax laay wax. Mhm. c'est quoi pourquoi ce choix. ah bon euh, côté boobu nag bu mu amee. bu mu amee club yu ma doon demandé foofu. Mm-hmm. dama waxtaan ak sama agent bi di ko ñu xol af mu expliquer ma fofu nu mi démé té man lolu dafa yaga doon sama rêve aussi jouer jouer Espagne mm-hmm. lolu mom sama rêve mm-hmm. rêve naa jouer si ay club yi mag bon opportunité boobu mu amé c'est la ñu waxtaan mu expliquer ma ñu fofu mo ëpp euh, visibilité ah ñu d'accord c'est cadeau motax moo tax ma dem Espagne alors nga club yi la soxla woon bëri na pourquoi le choix waaw deuxième division espagnole. voilà amoon na je pense ñaari ñaari club. Mhm. Espagne foofu noonu. Mhm. mais yeneen yi fee Brésil. Brésil ah, amoon na. léegi Espagne ñaar la woon quoi. waaw Espagne ñaar la woon après donc mu ñu waxtaanee. Mhm. si la mu expliqué euh, Tenerife. kii bu baax su ma demee wone ay kii yu baax. mën naa mën naa am ay club yu gën a. prestigieux voilà. Mm-hmm. donc loolu moo waral nag ñu mujj choisir dem Tenerife. alors comment comment tu te sens là-bas sa intégration si biir jeu bi est-ce que yaa ngi gis sa bopp carrément comme yaa ngi jógee Brésil ñëw Espagne. bon euh, sama adaptation bi maa ngi ci maa ngi koy liggéey bu baax. Mm-hmm. parce que xam nga football. brésilien ak Espagne du benn. Mhm. bi ngay nekk fii ak euh, bu ma demee fii tamit gis naa ni du benn. Mhm. mais maa ngi maa ngi ci kaw bu baax donc comme sama première année la foofu noonu. te gagné nga foofu titre aussi. waaw gagné naa fa titre. Mhm. gagné ñoo gagné kii bi tertiaire RF bi. léegi kii nañu pour secondaire RF. bon. loolu expliqué ko sénégalais. maanaam championnat Espagne. waaw. xam nga am na première division. Mhm. am na si deuxième division maanaam première division mooy la Liga bi. Mhm. deuxième bi Liga 2. Liga 2. Mhm. après kii moo ci topp mooy première première RF. moo ci topp. c' est comme troisième division. première RF après mu ñëw seconde RF comme quatrième division. léegi ñun B bi Tenerife B tertiaire RF lañ nekkoon c' est comme si c' est division. léegi réer na yéeg pour kii. segunda RF. Mhm. mooy maanaam quatrième division. ah d'accord soo xoolee si nu ñu kiiyee quoi. Mhm. léegi ren foo la ñuy kii. Mhm. donc euh, comme mois vie passé euh, temporada vie passé kay maa ngi doon kii sama adaptation. mais léegi bi su ma développé moom xam naa day gën a yomb ci man. day gën a yomb ci yow. waaw loo gars yi doon xaar xam ni dañ ko gis te. incha allah lu raw la ñuy gis. incha allah ñu ngi ñun tamit. ñun ñun sa ginnaaw ñun waa seen football TV ak sénégalais yi tamit parce que bokk nga si seen chouchou yi waa seen football TV moom suñ à chaque fois ñu wax si yow wala ñu def si yow ils sont ah suñu joueur baa ngi nii suñu Vinicius suñu brésilien bi alors parlons de ça kan mooy sa idole ci football bi. si football. Mhm. bon man soo xoolee sama idole mooy euh, Diba Dibala. Dibala. man naa ba Dibala lañ may ooyee sax. xam bokk am na ay joueurs yi nga xamante ne aussi. Mhm. seen football daf ma neex trop. Mhm. comme kan comme soo xoolee Sadio Mané dafa di joueur bi nga xamante ne daf ma neex trop. Mhm. donc sama référence la. soo xoolee am na benn joueur buy joué championnat Brésil aussi Rafael Veiga. moom aussi. sa sa idole waaw sama bokk na samay joueur. Cristiano aussi. Cristiano Chris moom waaw. sa joueur la waaw kooku moom. am ah, mooy loolu. <laughs> sa joueur la quoi alors ce club de cœur club bi nga xamanteni bi nga nekké xalé mo nga doon supporter tamit aussi rêvé nga jouer ci club bobu lool ban club la ya ya mais ya sa ak sénégalais non il faut nga wax <laughs> il faut nga le fils so supporter ki ñeneen yi mère non non fi joueur yépp ñu wax ah, interview dañu tok mais man depuis depuis bu mé xalé Real Real moy club bi moy yaga supporter quoi Real Madrid bu mé nek xal mhm. tay ji tay ji imagine Real Madrid signé la tu vas dire que voilà j'ai atteint mon objectif. waaw loolu bokk na ci samay rêve de. Mhm. bokk na ci samay rêve J'ai Real Madrid. Mhm. waaw nga xam naa ne Real foofu moom jour yi. Ouais. Est-ce que gëm gëmoo ni am na jour boo xamante ne rêvé wu fa. Ouais. c'est vrai c'est vrai waaw ndax man su ma mhm. sañoon si Real gagné ay trophée waaw gagner, gagner fa lu bëre. donc loolu bokk na si samay rêve aussi. en tout cas football bi moom liggéey rek. boo liggéeyee club hmm. c'est sans problème on compte sur toi té gëm nañ yow ambition bi nga saison prochaine lay club alors ce début de saison ban bilan nga en Espagne bon man comme nous ma ni maay doon liggéey mm-hmm. continuer di aussi mm-hmm. pour suma def saison bu

jouer pour l'équipe nationale loolu déjà calé nañ ko loolu wax ci touti waaw euh ñu de yàgg naa di gis ay nit yàgg nañ ma yónnee message. Mhm. damay recevoir genre message yo même TikTok Instagram. Mhm. waaw loolu loolu tamit bokk na ci sama ci samay rêve sama objectif. Mhm. jouer équipe nationale. du Sénégal waaw du Sénégal. bon ñi dañ ma yónnee message mais comme d'habitude ñu mu koy waxee ñii rek. dara. darul jarul yàkkamti jarul yàkkamti tu es jeune voilà mhm. mu jotee rek dina yomb ko te mhm. xam naa man dina continuer liggéey. te dinaa gën a liggéey à chaque. Mhm. su ma naree si équipe nationale. boobu dina leer ñëpp ni kii war na fi football du am benn xëccoo daal. lan nga mën a apporter si équipe nationale bi tey jii ak ni nga ko gisee nii yaa ngi gis déjà ñoo éliminé. ci Coupe d'Afrique bi té Coupe du monde qualification yi joué nañ ko la fois passée contre Mauritanie on a gagné mais contre RDC Congo gis nga bi bu ñu encaissé à la dernière minute nim ñu handicapé alors wax ñu tay lan nga mëna apporter yow ci équipe nationale bon man xam naa ni équipe nationale. su suis fa demee mën naa leen jàppal ndax duteewu ma sama talent. Mhm. te dinaa liggéey aussi. naa mhm. gën a liggéey sax. Mhm. ce que su ma demee mën leen jàppale duteewu ma si lu la li ma yàlla may ak li ma donc xam naa ne su ma demee équipe nationale mën naa mhm. leen jàppale ndax am na li ma mën ma ni am na ci say dribble genre ta façon de dribbler ni ngay fubalee ni nga gaawee récupération de balle daw dribbler goal genre loolu dañ koy gis yow parce que visionné nañ say vidéo te xool nañ sa quelques matchs aussi loolu gisoon yow loolu genre euh, profil boobu dafa manqué équipe nationale bon waaw comme ni nga ko waxee rek. Mhm. Sénégal fii suñu équipe nationale sax laa wax. Mhm. suñu attaque bi dañoo. Mhm. gis nañ suñu ñun suñu système de jeu. daw bi lañu ñu gën a kii. daw uh-huh. waaw te loolu liggéey naa liggéey naa loolu noonu. li ma li nga xamante ne mën na ma permettre def loolu noonu. te am naa li ma li nga xamante ne mën na ma permettre maanaam match bi lu ma lacce Mm-hmm. mën naa ko ko jox. Uh-huh. bu doon dañu laajte maanaam football bi dafa laajte course. Mm-hmm. mën naa indi lool noonu bu doon dafa laajte téye ballon aussi. Mm-hmm. mën naa mën naa indi loolu noonu aussi maanaam man du ma excentré boo xamante ne dañ ne kii daw ko se mooy forum daw kese la mën. wala ñu ne kii dribble kese la mën gaawul. donc man fu mu ñëwee rek mën naa mën naa ci demee ko fu mu ñëwee rek. fu ñu la tegee. waaw maanaam est-ce que genre attaque bi ban côté nga mën jouer est-ce que tu es polyvalent wala fu ñu la teg sax. maanaam ci attaque man foo ma teg rek damay def. mi côté ah gauche côté droite comme même point trois postes yëpp bu la fa tegee da nga teg rek donc mën nañ japp né Aline Badara c'est un joueur complet quoi. waaw ah il est complet. <laughs> bu dee yow loolu dëgg la fu la teg ci ki nga gérer. Mhm. ah en tout cas ñun moom ñoo ngi la koy souhaiter au plus profond de nos cœurs parce que ñun bëgguñu lu dul. renforcer suñu équipe nationale du Sénégal parce que ñun ñun ñëpp équipe bi la ñu am moo ñu mën a yóbbu fu sori moo ñu mën a bégloo donc nag ñoo ngi lay ñaax encore boo demee Espagne tojal parce que man je disais à Mohamed booy bi ragal naa di waa Brésil jël ko de jox ko nationalité <laughs> loolu mosul a traversé nga Sénégal suma ma damay dem fi wala dem fii wala yow Sénégal rek. non man Sénégal dafa yaga don sama Je suis j'ai équipe nationale bi fii. Mhm. bon mhm. la ma ngi xaar ngi mhm. à chaque mu am mais mais rassure-nous quand même. tu vas tout faire pour mouiller le maillot du Sénégal. Inshallah. Mm-hmm. Mm-hmm. alors waxtaan bi neexon na trop bëgguma won mu jeex sax <laughs> mais boba que dama kay baye deuxième partie ah, de la fin ak TV. bon ah, gars yi di nuyu ñep mm-hmm. wa seen football TV waaw di leen wax kontaan naa trop. Mhm. gis naa ni ngeen may encourage di dool kii bi aussi parce que damay gis des fois suñu posté des fois mu dugg di xool commentaire yi. Mhm. muy lu positif lu négatif lépp. Mhm. damay dem man damay jàngaat man nit ku ma yedd damay gis des fois nit di ma. di ma yedd foofu noonu. bon damay jël yooyu yëpp comme jàngat ko jàngat même si uh-huh. jàngat yi gën a. kii mm-hmm. rek mais du ma dugg di xool gis wàllu négatif rek mer déedéet. man nit su ma yeddee rek damay xam ne kii lu baax la ma bëgg. c'est vrai donc euh, loolu def may poussé ak gën a mais gën a loolu motivation la si. Mm-hmm. gën a liggéey. Mm-hmm. donc di nuyu ñëpp leen wax ni kontaan naa merci beaucoup. merci à toi.